lay way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna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 waaw ah, teewaay bi mooy ndigal bi rek. ah macha daa mel ne am mbégte laa waaw mbégte bu baax baax sax. rangi moom fu mu jëm moom ci barab bi la jëm wala. waaw ci barab bi la jëm mais foo ko ab nag sori na presque egg na garage. depuis kañ depuis kañ yaa ngi ah, depuis 9 euh, heures ba léegi ah. ngay sànni soxna Diarra. soxna Diarra xanaa di ñaax jigéen ñi rek ñu roy ci moom parce que lii ku ko xool rek war na laa yee bu baax baax surtout ngay soxna waaw ñu war a roy ci soxna jaaro bu baax a baax a baax. parce que lii lépp topp ndigal rek moo ko may bàyyi tere soxna yi war nañ ci roy ci moom bu baax baax ñun góor yi ñu roon ci Maam Mor Anta Sali parce que su fekk doon borom kër gu baax du am lii waa du fekk borom kër gu baax kon ñun góor yi roy ci Maam Anta Sali jigéen ñi roy ci soxna Jaara tur bi naka la Serigne Touba Sarr Serigne Touba Sarr ah kii sama doomu baay la Sarr ñoo ngi lay siyaare baax jërëjëf Tawfekh Production mu ngi lay di la sant sëñ Mortala maa ngi taxaw ak ñaari kilifa yu baax baax ñu ne ci rang gi ah, yan kàddu ngay sànni ci soxna Jaara gannaaw bu ñu nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax waaw kontaan nañ lool nag ci màggal gi ndax soxna suñu wax dëgg yàlla dafa liggéey loo xam ne lu rëy rëy rëy rëy bu jigéen ju am màggal gi ñu ne soxna Jaara kon nag liggéey na lu rëy rëy rëy rëy. boo doon soññee ci jigéen ñi ana ban taxawaay lañ war a am seen diggante ak soxna si. jigéen ñi jéem a roy rek soxna si ndax lu am solo la ndax maanaam daal àdduna si maanaam jeex na ba noppi kon nag li li doon rek mooy ñu jéem a roy soxna jaara dafa mel ne sëñ Touba deselu ñu dara moom exemple la soxna jaariyatullahi it exemple la sëriñ Mamor Anta Sali kon ab murit nu mu a mel liggéey na lépp rek fi nga mën a mel mooy rek dégg ndigal topp ay kàddoom rek lu mu def lu mu wax ñu def rek at mii mooy sa at mu njëkk nga màggal si poroxaan wala de waaw wax dëgg yàlla yàgg na maa ñëw poroxaan nag waaye ren moom wax dëgg gis naa lu ma yéem lool gën na maa bég lool ko bu baax rek. jërëjëf Tawfekh Production. jërëjëf jazakallahu xayr maa ngi taxaw ak sëñ Dame Niang euh, Parcelles Assainies euh, di kenn ci magi murid yi ñëw fii ñu fekk ko ci rangi yaakaar naa rangi moom euh, mag ñeeg gone yeeg ñëpp ñu ngi ci biir ana yan kàddu ngay sànni ci bis bi soxna Jaaratu xanaa di sant rek di sant Serigne Touba di sant suñu wasila di Serigne Touba di sant Serigne Mountakha mi nga xam ne di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér bis bi nag bis bu mbégte la ci bépp kuy taalibe nun taalibe murid lii rek la am amul mag amul gone ku ñëw boo ñëwee dangay na ci rang bi ndax lii moonu jik ñaq wi ma ñaq ci rang bii moo may dundal moo may suuxat sant naa bu baax yàlla nañ fi yàgg ñëw fi yàgg leen fee fekk ci barke Serigne Touba. kaddu yooyu sànni nag ci mbokki soxna yi ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun seen diggante ak soxna si. waaw soxna yi moom moom li may wax rek mooy ñu roy ci soxna si ndax képp ku ne da nga bàyyi sa kër ñëw fii kon li nga xam ne da nga daa dégg maam jaara di ko def boo nekkee sa kër da ngay jéem a roy ndax ndax am sax doo mën a def lim def lim doon def waaye nga jéem a jaar ci tànk yi yi mu doon jaar mu jëm ci sa njaboot mu jëm ci sa sëriñ mu jëm ci liggéeyal yàlla liggéeyal sëriñ Touba loolu daal laa ciy wax. jazakallahu xayran Tawfekh Production mu ngi lay sant la jërëjëf jërëjëf. lay tee maa jóg way fi ngeen jëlin sa wéy ñoo ma jëmmalul boppam soxna Jaara